agent de protection rapproché ngay wax man je parle d'un agent de sécurité mais, comme vigile yi nga xam ne il a une très grande différence ah il y a une très grande différence xam nga tey c'est pas la c'est pas la même xam nga boo dee xool yow agent de protection rapproché la agent de protection rapproché benn taxaw si devant les xam nga euh, euh, vigile dafa bëri ay façon yoo xam ne waaw dafa bëri ay façon yoo xam ni tey dama lay expliquer de ça y a ce qu'on appelle de prévention en événement événementiel. ok exemple ñooñu comme ay concert ñooñu dañu spécialisé wu ci loolu. Mhm. am ñoo xam ni c' est des agents de sécurité de proximité comme les contrôles d' am ñoo xam ni la brigade cynophile des maîtres chiens am des agents de protection rapprochée comme li ngay wax l' mhm. équipe lay doon ci équipe bi même le chauffeur day nekk un agent de sécurité avec son arme. Mhm. aussi euh, les autres dañ en même temps dañuy mën dawal. tey chauffeur mën na sonn am malaise. en cours de route ainsi de suite moo tax man la un agent de sécurité da nga war a. ñi ànd ak président ñi yëpp da war a complet mhm. mais man ci côté bi may waxee mooy comme contrôle d'accès yi ñu nekk ci yenn. Ah, boîte yi wala yenn kër yi wala yenn kër autorité non généralisé man ci côté boobu laay waxee. xam nga léeg-léeg da ngay gis euh, gardien bi en général dañuy jàpp ni xëy na moom dafa xeebu. souvent moom mooy xeeb boppam parce que en général nit ki si sa comportement si mm. uniforme bi lañ lay joxee respect wala ñu xeeb la. tey soo ñëwee doon vigile mais hmm. tamit yéen am ngeen ci part de responsabilité parce que benn vigile bu ñu formé day ñëw fii nga ne ko doo ma jëndal ndékki mun la non nga ñu woo patron mais ki fi nekk arrangé dafa bëri problème diw moo ko gën a baax parce que diw yow la arrangé ça <laughs> waaw parce que diw yow la arrangé loolu ñun la wala nga woo ma jeeg-jeeg woo ma jëleel ma fi kii bëgguma ko fi ma ne la lu tax lan la def parce que man ngay fay ñoo signé contrat te contrat eh. dafa am solo hmm. contrat bi ñu signé tey bu problème amee sa kër après ñun ñooy payer les pots cassés mais nekkul ni yow vigile bu ñëwee sa kër léeg-léeg ngay yoo xam dañuy nekk si kër au ñu assurer la sécurité mais ñooy bale ñooy fobeere ñooy dox yónent donc métier bi li ci bëri donc li nga xam ne moo ci nekk di ci indi ay gàllankoor dafa bëri mais donc état laay lancé. je sais pas mën naa poser benn question balaa nga. Euh, rapidement ñu dellu ci xam sa hmm? bon hmm. expliquer nga yëpp li nga wax yëpp bon moi je suis je suis hmm. mais lan moo la motiver. que ngay waxee ni que ngay la sa motivation. sama motivation daal mooy métier bi ñu valoriser ko mu am valeur. ma da nga jug rek comme ça ne. métier bi foog ñu valoriser ko parce que bëri na ci yoo xam ni étudier naa ko ci nga xam ni ay appel d'offre marché yoo xam ni dañ ci participer. Mhm. mais da ngay gis. nit ñi dañ koy gañee ci anam yooyu parce que ñoom xaalis bi boo gisee wax loolu métier bi dafa am ñoo xam ne xaalis moo leen ci indi. Mhm. comprendre nga mais yow